mbokk jërëjëf am nañu mbégte wax dëgg fa yàlla ci jotaay bii nga xam ne dañu ko wuyu si fekk si suñu gan mu dalal ñu li tax ñu bëgg namm waxtaan ak moom ndax bariwul lu muy faral yëkkati kàddu xëy na jaar-jaar bi buñ leen ko waxee di ngeen ko xam bu weesoo jaar-jaar bi aussi xam taarixu senegal tax na xëy na lu bari muy téye boppam waaye nag jamono di dox léeg ñoom ci seen bopp ñu am lu ñu sumb seeni i maas seen màppandoo ak xale yi nga xam ne bëgg nañu duggante ak ñoom ba tax dinañuy faral di jukki di wax ci tolluwaayu réew mi suñu gan Mamadou Ndoye la baax na aussi ñu fàttaliwaat xëy na am nañu ko xamul lu mën a nekk la waaye ci gàttal rek wax ni Mamadou Ndoye nekk na ñaari yoon ministre ci gouvernement diggante 1993 ba 1998 ci ñaari xaaj 1993 95 mu nekk ministre de l'alphabétisation et des langues nationales 95 98 mu nekkaat ministre muy ministre de l'éducation de base et des langues nationales ngeen gis ni kon ci ñaari portefeuille yooyu langue nationale dafa des waaye bu njëkk bi alphabétisation la deuxième portefeuille bi ñu weccee ko ak éducation de base dinañu wax loolu ndax ay technicien ñoo koy mool ndax ci caprice rek la baat yooyu wala dafa am loo xam ne nii ëmb na ko dëggantaan ci ay réformes ndax jóge ci alphabétisation dem ci éducation de base faw ñu xam lan moo ko lal li tax mu ñuy amal njëriñ suñu jotaay dina am lu bëri loo xamante ni ci njàngale lañu koy waxtaanee ndax Mamadou aussi. wax dëgg fi yàlla ci lañ ko gën a xam bu weesoo ministre bi mu doon homme politique la bokk ci bokkoon ci LDMPT ndax nekkoon na secrétaire général LDMPT bu professeur Abdoulaye Bathily bi mu ko jiitee moom moo ko wutu moom ci boppam 2013 2017 la jiite LD mu démissionnel boppam 2017 waaye Mamadou Ndoye du loolu rek ndax syndicaliste la bokk na ci ñi nga xam ne ñoo sos syndicat enseignant bi nga xam ne ràññee nañ ko loolu ci réew mi du sud-est syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal mës na fi nekk it secrétaire général UDEN UDEN di beneen syndicat jàngalekat loolu yëpp ci ay jaar-jaar la Mamadou Ndoye bokk it ci ñi nga xamante ne nii waslu ñu àq ci état générau de l'éducation 1981 ak léegi xëy na yàgg na waaye dinañu mën a permettre ñu évaluer njàng mi ndax wax dëgg suñu jotaay bi namm nañ ci aussi amalee ko ci jamono joo xam ne président Bassirou Diomaye Faye jiite na bës bi nga xam ne dañu ko jagleel setal suñu réew mu jagleeloon ko école yi ndax ci jamono yu ubbi école la ñu nekk mu ne nag ku nekk dellu école ba nga xamante ni nii gis nga sa fa bopp pour ñu bokk setal ko moom mu demoon lycée Demba Diop bu Mbour ca benn cour normal la ñu ko doon wax waaye président Bassirou Diomaye Faye yëkkati mu ne xëy na njàngale mi dana am réforme yu profonde ñu def ndax enseignement général bi di sëf xale yi lu bëree bëri bëri peut-être que amul njëriñ ba tax na danañu gën a fexe nit ñi spécialisé ñi nga xam ne aussi yàlla wërsëgeewu leen ñu war a def ay agrégation nekk docteur en nangam ak nangam ñu xiir leen ci ñu def enseignement professionnel. loolu président Bassirou Diomaye Faye moo ko wax te ay réforme la woote ci wàllu éducation moo tax. ñu sawar waxtaan ak koo xamante ni nii addunaam yëpp engagement am yëpp ci éducation la ko def Mamadou Ndoye dalal jàmm ma dalalaat la jàmm. jërëjëf maa ngi lay gërëm surtout di gërëm ci présentation bi ndax présentation bi dafa jub li ci nekk daal amoo <laughs> amoo dara lu ma ci yokk maa ngi lay gërëm bu baax a baax. Mamadou Ndoye mënuñoo tàmbali suñu waxtaan ndax wax dëgg fa yàlla fan yi ñu génn jëmm ju mag joo xam ne aussi. éducation dem na ci ba ci fi gën a kawe ndax kuréelu mbootaayu xeet bi nga xam ne mooy topp wàllu éducation science ak culture du UNESCO Amadou Mokhtar Mbow di sénégalais jiite na ko 1974 ba 1987 yóbbaale na sax. année bi nga xamante ni yaa ngi ci enseignement ci syndicalisme te participer ci état généraux de l'éducation yi ma doon wax nii 1981 moom boobu fekk na mu nekk directeur général UNESCO am nga jaar-jaar ak Amadou Mokhtar Mbow. waaw Mbow dafa nekk nit koo xam ni royukaay la ñun sunu génération bi ñu bokk xëy na moo ñu mag mm-hmm. ndax. bu fekkee ni sax <laughs> wax nañ waxi dëgg mën na nekk sunu pap bien sûr waaw waa de Amadou Makhtar Mbow li mu def ci mbirum jàng ak jàngale dafa rëy bu ñu commencé ci jàng bi duma ci sori waande daf ci joxe exemple bu métti bu bu boo xam ni xale yi war nañ ko topp exemple boobu mooy bu fekkee ne danga nekk sa cursus nekk sa parcours scolaire mën nga am ay rëq-rëq yu ñëw yoo xam ne bokkul ak sa jàng yoo xam ni doo mën a continuer di jàng waane rëq-rëq yooyu boo ci jógee rek mën nga delluwaat di jàng Amadou Mahtar Mbow loolu dal na ko ci parcours am mm. ndax nekk na fi dans l'armée dugg na armée ñëw jàngiwaat yeneen dal na ko fi te bu ñëw jàngiwaat mooy wane ni àdduna jàng du arrêté mukk ak lu sa at toll toll toll mën nga jàng sa loolu Amadou Mahtar Mbow daf ko wane ci parcours ñaareel bi mu wane mooy jàngale bu fekkee da nga bëgg jàngale dëgg da door fi nit ki suqeekoo hmm. loolu la Amadou Makhtar Mbow doon woowee éducation de base. ba nga xam ni daf daan dem ci village yi nga xam ni ñoo gën a ndaw seet ñi nga xam ni jànguñu lan moo war a nekk seen soxla ci jàng maanaam lan moo méngoog li ñuy jafante ci biir village bi yan euh, arme la leen jàng mën a jox ba loolu ñu mën koo faj mu jëm ci waru gu yaram jëm ci mbiru bay jëm ci lu mu mënti doon ba nga xam ni li ngay jàng day am sens li tubaab di day am da nga koy am utilité ak utilisation ñaar yëpp da nga koy boole. loolu mbow won nañu ko itam bi mbow demee UNESCO am na liggéey bu mag boo xam ni def na ko fa. nit ñi jël nañ nouvel ordre mondial de la communication et de l'information wande euh, mbow bu dul loolu am na leneen luñ dul wax ci mbow ndax euh, bi ñu amee indépendance dañu woon dañu bëgg a programme yi bi ñu dañuy africaniser programme yi chef d'état yi bañ fa jógee dañ ni UNESCO dañu bëgg ñu dimbali leen ndax histoire de l'Afrique bi ñuy dégg histoire la boo xam ni tubaab yi ñoo ko raconté ci Afrique mm-hmm. dañu bëgg beneen histoire boo xam ni histoire Afrique dëgg la mm-hmm. Mbow ni historien yëpp dajaloo def liggéey bi ñu tudde histoire générale de l'Afrique mu nekk ay huit tomes œuvre bu mag la huit tomes la bu wone ni Afrique d'abord mooy berceau de l'humanité wone ni les premières civilisations humaines Afrique la ñu jógee wone ni ñuy wax ni nous ne sommes pas entrés dans l'histoire ñoo leen jiit dans l'histoire waree ni muy métallurgie muy lu mu mënti doon fii lañ ko jëkkee les premières inventions fii la jëkke mhm. waree ni balaa tubaab yee ñëw amoon na fi ay royaume bien organisé sur le plan étatique amoon na ay empire bien organisé sur le social amoon nañ ay art amoon nañ sculpture yoo xam ni ku leen gis say da nga ndax lii ñoo ko defar am defaruñu ko loolu yëpp histoire générale l'Afrique wane na ko wane ni nag loolu yëpp sa dëgg-dëgg li tax ñu toll fi ñu toll tey suñu dajee tubaab yi moo indi loolu. mais est-ce que quand même. duñu mën a taxaw def devoir d'inventaire. parce que mm-hmm. loolu nga wax Amadou Mahtar Mbow def na ko. 1987 mm-hmm. la fa jóge mm-hmm. wax dëgg fa la tey boo xoolee ba léegi. les pays du nord ñu ngi ñuy raw nouvelle ordre mondial de la et de la communication boobu nga xam dafa bëggoon réduire fracture numérique bi pour ñu daboo ñu bañ a am dépendance ba léegi mu ngi wéy devoir d'inventaire bu ñu ko defee est-ce que war nañoo mën a xam quand lan moo tax ba léegi moom rapport de dominance domination boobu. xam nga bi Mbow jógee sa keroog bi nga xam ni ñu koy gunge. jox nañ ñu fa benn information boo xam ni xam ndax ni téye nañ ko téewuñ ko. Mhm. nee nañ ni Mbow bala mu fee jóge dafa créer fondation sur le savoir endogène. Mhm. loolu ci la war a jublu ñun ñu fi jiitu bala ñoo dajeeg tubaab yi dañ daan faju savoir endogène baax nañu tax mooy li nga xam ne. li ñoo mooy li may wax rek. voilà daan nañ faju moomal suñu bopp. daan nañ faju mhm. xamoon nañ feebar yi fi nekk naka lañ koy faje balaa tubaab bee ñëw xamoon nañ plant bi lan la mën a faj ak lu mu mënul faj. Mhm. xamoon nañ ni feuille bi mën na la indil lu baax mbaa mën na la indil lu bon si domaine bu mënti doon am nañ ay eh, xam-xam yoo xam ni ñu ngi fi. Mhm. sa li nga xam ni gisatuñ ko moo tax ma doon wax histoire générale de l'Afrique ndax daf ñu jàngal leen. Mm-hmm. li mu jëkk jàngal mooy suñu bët dañ ko tëj ndax histoire bi nga xam ni moom ñu tuwaab yi doon dajale ni ñu même suñu histoire ba ñu gëm ko. Mm-hmm. daf ñu terewoon gis li ñu moom lii kii di tuddee kisee boo di wax ni boo toogee ci nattu keneen am na loo xam ne doo gis mais boo toogee sa nattu bopp am na loo xam ne di ko gis bi ñu décidé toog suñu nattu bopp toogatuñu ci natu tubaab yi la ñu gis ni am nañ ay sources orales yu fi nekk mhm. am nañ ay sources écrites yu fi nekk am nañ ay sources archéologiques yu fi nekk yooyu lañ jël valoriser ko ba mu woon ñi lan mooy suñu histoire dëgg ñun nag ba léegi lu bari dañ ci gëlëm ndax am na yu bari ñoo xam ni ñu ko xool gisuñu ko valoriser wuñ ko ndax suñu xel xelu tubaab la est-ce que du lu bëri daf ñu échappé parce que xoolal par exemple suñu patrimoine am na loo xam ne bu ñu ko soxlaa tubaab bi la ñuy dem ñaan ko pour mu delloo si ko wala mu joxaat ñu ko parce que moom moo yóbbu lépp est-ce que lu li ñuy échappé moo tax peut-être histoire bi jafe. déedéet du loolu li nga xam ne moo gën a am solo mooy sunu xel ñu delloo si ko ndax sunu feebar bi sunu xel la nekk. moo ñuy tere gis moo ñuy tere xool moo ñuy tere xam. feebar bi sunu bopp la nekk sunu bopp boobu fe fekk jógewu ci duñu gis dara mooy li ma doon wax léegi rek jëlaat mbiru histoire ba fekkee ne histoire explorateur yi lañ doon déglu seen témoignage mhm. les hommes d'église yi jëkk ñëw Afrique ñoom lañ naan déglu seen témoignage loolu moo doon histoire Afrique bi ñu jógee ci loolu ci lañu mën a gis ni sunu histoire nekkul foofu yaa ngi wax léegi ndax duñu seetaat ndax raw nañ ñu et tout boo wax na ci lu am fayda nee na tant que ñi ci biir dañuy raw ndax ñoom yoon wi seen yoon la ñun bu fekkee ni seen yoon lañu bëgg a topp duñ leen dab bu mukk waa seen yoon woowu ñu jëm mhm. ba mu indi àddina fii tey est-ce que yoon woowu xam ne ñun war nañ koo topp ndax beneen yoon la ñu war a topp mhm. loolu il faut ñu xalaat loolu léegi ñuy wax développe seen développement dafa avance mhm. mais seen développement fi mu indi àddina tey tiital na àddina yëpp est-ce que yoon woowu ñun la war a jël ak ou bien dañu war a xàll beneen yoon bu méngoog njëriñu nit ñi loolu mooy waxtaan wi tey ci àdduna naka lañuy fexe ba sunu xalaat dellu ci Afrique mm-hmm. même jàng mi damay waxtaan toujours ak ñenn ñi di leen wax nii petite enfance li ñu développement de la petite enfance boo seetee pays africain yu bëri ñu ngi ci ay trois pour cent quatre pour cent cinq pour cent de préscolarisation mais parce que modèle bi ñu bëgg def modèle boobu méngoowul ak li am ak li ñu mën méngoowul dinaa joxe toujours exemple Zanzibar bi nga xam ne bi ñu xoolee loolu daal di xoolaat seen bopp ni nañ jógee foofu ci modèle boobu waa fii ñu nekk est-ce que amuñu fi loo xam ni mën na fexe bu petite enfance jëm kanam bi ñu xoolee loolu ñu ne mais xale yëpp fii sunu dëkk Zanzibar bala ñoo jàng école dañuy jaar ci daara mhm. ñoom ñëpp dañu dem jàng alxuraan bala ñoo dem jàngi école ñëpp xale yëpp comme que loolu la ñuy def mais léegi nañu waxtaan nag borom daara yi seet protection enfant développement enfant ak inciter apprentissage précoce yooyu yëpp naka lañ leen koy jàngale ba nga xam ne xale yi comme ñoom ñoo leen jël avant que ñu dugg école ñu préparer leen ci loolu yëpp ñu jóge ci 4 pour cent jëm 80 pour cent. ci loolu. sa xooluñu li ñu moom. Modou Ndoye am na yu bëri yoo xam ne bëgg nga ma cee dugal mais dañ koy ndab benn benn parce que yëpp. mën na doon wàll ci suñu waxtaan bi parce que ci suñu diggante ak yoon yi nga xam ne ne nga pays du nord ñoo ko xàll. bu ñu leen ci toppee mën nañoo dugal ci économie. Mhm. te tolluwaayu débat bi na nga xam ne ci lañ toll nii tey gis nga suñu diggante ak ñaari organisme yu mag yooyu nga xam ne ñoo ñoo ñoo daanaka lii de àdduna bi FMI banque mondiale mais dinañ ci ñëw loolu beneen wàll la. Hmm. mais ñu taxaw ci évaluation. Hmm. Maodo Ndoye maa ngi fàttaliku sa jaar-jaar sànq ci li nga nekkee ministre de l' et des langues nationale waaye it ministre de l' de base et des langues nationales baat bi wecceeku diggante alphabétisation ak éducation de base. ndax technicien moo toog rek ne nañ jël baat bi wecc koog baat bi wala dafa am lu ko lal dëggantaan a dëggante 93 ba 98 baat bi soppeeku ci diggante bi. waaw ñaar la bi ci jiitu mooy bu ñu nee jàngu jeunes yi la ak adultes yi alphabétisation ci éducation de base la bokk ndax loo xam ne da jàngal li ngay jànge mhm. da da jàngal li ngay jànge ci éducation de base la bokk. Mhm. ndax bu lay jàngal lire lire du pour lire rek. pour nga mën a jàngal la. Mhm. buñ lay jàngal calculer pour nga mën a jàng la. bien sûr buñ euh, pour nga mën a mhm. loolu moo lal éducation de base. moom ngay def ci alphabétisation mais moom ngay def aussi ci école primaire donc seetlu boobu tax na bi ñu demee ci xuuse ci alphabétisation bu mu bëgg sori ñu ne te ñu yokk ci enseignement primaire mu dekk mu nekk éducation de base comme ça ñu seet nu ñu koy doxalee sa bi ñu ko defee tout de suite dafa indi leneen lu bees dañu génne lu ñu woowee socle commun maanaam ñi ñëpp war a jàng bu dee xale bu dee ndaw bu dee mag ku mënti doon war nga ko am comme base ci jàng ku mënti doon ak nit ku mënti doon pour nga nekk citoyen pour nga xam naka ngay sàmmee sa wérgu yaram pour nga xam naka ngay liire pour que nga xam naka ngay calculer loolu nekk ce des compétences de base socle commun bi nag dafay nekk ci alphabétisation nekk ci école primaire ba nga xam ni après ñu mën méngaloo éducation formelle éducation non formelle ak éducation informelle yëpp ñu bokk benn curriculum de base mmh. boo xam ni koo jàng rek éducation de base loolu war nga koo yor voilà Mamadou Ndoye bu ñuy fàttali ko volontaire ak contractuel évidemment gouvernement président bu Diouf mais yow yaa ko fi dugal tant que ministre bi nga xam ne nii programme boobu yaa ko fi dugal mu soqee ko ci loo xam ne aussi partenaire au développement yi daanaka ñooñu ko suruxal comme li nga wax sànq ci ñoom ñooy xàll yoon wi ñoo ñuy xool fu ñuy jaar avec le recul tey ci programme boobu li ko wundoon ñu wax ko mooy fexe woon ba démocratiser enseignement bi bokkoon na ci point important démocratiser maanaam fexe ba ñëpp jot ci njàng mi te njàng mi pour ñëpp jot ci foog moom mi ay enseignants yu nekk ci classe yi mais programme boobu est-ce que bu avec le recul tey du lu dévaloriser jàng wala est-ce que yoon bi ñu xàllaloon ñooñu pour dugal ay volontaires ay contractuels ci éducation nationale lu baax la woon am déet. mbirum jàng biñ ko defe sunu xel ak ni mu war a amee du benn boo seetloo mag ñu bari dañuy wax sunuy temps njàng mi baaxoon mag ñu bari même ñi nga xam ni ñu ngi daan jàng sous la colonisation pour ñoom école coloniale boobu lim naan def en matière de qualité sunu école bi du ko def ci seen bopp ñoom seen xalaat man sama école primaire su la colonisation la école primaire bien sûr li may joxe toujours comme exemple dama leen di wax ni bi ñuy dugg école soixante élèves lañ woon bi ñuy dugg soixante lañ woon pour dem sixième collège kenn ki soixante moo fa dem. Hmm? kenn ki soixante yi c'est kenn école boobu lañ daan wax ne école bu baax la. Hmm. tant que génnewuñu sunu bopp li ñu dugal que école bu nekkul école élite du école bu baax. du ñu xam luy école bu baax école élite moo gën a yemb ci école yi moo gën a yemb ci école yi ndax lan la am nga san élèves yu dugg nga jéem a seet ci cent yooyu yan juróom ñoo ci tane ñoo ci kii juróom yooyu nga sélectionné leen jox leen ay conditions yoo xam ni. ñeneen ñi mënuñu koo am jéem leen yóbbu ba ci kaw ñu ne école boobu baax na juróom yi juróom-ñeent fukk yi ak juróom anañu ñu bàyyi leen ci wet. loolu mooy école bu baax sunu gis-gisu école bu baax mooy école boo xam ni ki nga xam ni day doon paysan. dafa jàng ba nga xam ni lu xaw ci mbirum agriculture sañu bind ko mën na koo jàng xam ko def ko ci liggéeyam ba diversifier agriculture bi yokk productivité de travail kooku la ñu bëgg paysan la war doon mais jàng na éleveur la jàng na fekk loolu bu ñuy wax école day indi développement loolu mooy tax école di indi développement waaye du élite bi rek mooy indi développement école bi tant que joxul paysan bi li nga xam ni dina ko mën acquérir pour que yokk productivité travail am diversifier production loolu bu fekkee ne amul école boobu baaxul école boo xam ni kuy doon ouvrier paysan et doo doo jàng doo mën dara boobu école baaxul école bi baax mooy école bi nga xam ni ku nekk dina fexe ba li nga war a mën nga mën ko ba fa nga war a yem nga yem fa mhm. sa àddina wane ni amul kenn koo xam ni mënul bañ a jàng liir mënul bañ a jàng calculer même xale yi nga xam ni dañu am laago bu leen dal du ñu dégg bu baax mbaa dañu gumba même ñooñu trouvé nañ moyen ba nga xam ni bu ñu waree liir dinañ liir bu ñu waree bind dinañ bind hmm. kon nag amul nit koo xam ni amul xale boo xam ne ci jàng bi ñu tuddee jàng fondement mënu ko réussir amul. lan nekkoon solo yi quand même. def ah. programme parce que ci nañ léegi dinaa egg ci volontaire mhm. ndax euh, ci loolu lañ jëm. biñ may jox enseignement primaire pour yokk ci alphabétisation mu nekk euh, éducation de base. dama def évaluation bi évaluation bi lu mu wane woon mooy at mu jot dañ naan perdre ñaar ou deux points de scolarisation at mu jot mm-hmm. loolu laa fi fekk at bu jot juy soixante pour cent cinquante neuf pour cent cinquante huit pour cent cinquante sept at bu jot ñu perdre loolu laa fi fekk wax nga léegi ay partenaires au développement benn partenaire au développement sifle loolu benn partenaire au développement kooku koy wax da ngay wax loolu la neex sëñ na liggéey ak man. Ah, mi se programme d' ajustement structurel waaw programme d' fi laa ko fekk. Mhm. moo indi li ma lay wax wàññi boobu chaque année mu daanu loolu la programme ajustement structurel indi loolu la indi lu tax mu indi loolu ma expliqué la ko. Mhm. booba temps dañ mënu leen recruter lu ëpp cinq cent soixante enseignants par an ngeen mën a yem loolu la programme ajustement structurel waxoon cinq cent soixante boo ko recruter trois cent yi trois cent yi ñoo ñëw pour remplacer ñi dee ak ñi démissionné ak yooyu kon donc deux cent soixante yu bees rek nga am bien sûr deux cent yu bees yooyu mënuñu couvrir yokkaatu yokkaayu population scolaire bi parce que kooku à l'époque trois virgule pour six pour cent la doon yokku at mu jot looloo waraloon ñuy baisse chaque année man ma ñëw analyser loolu ni lii nag lan laa fi jóge ma ne président dama dem seeti président Abdou Diouf waaw à l'époque kooku du partenaire développement dama maa seeti président ni ko président xanaa mënuñu xool li nekk ci réew mi pour régler problème bi ndax booba temps yokk ci loolu lu am fayda la woon président parents d'élèves yi doon nañ construire au moins mille classes association parents d'élèves yi mille classes par an ñun mënuñu joxe ay maîtres pour classe yooyu mënuñu ko joxe alors mu nekk président mënuloo seetaan li ne est-ce que amuñu fi xale yoo xam ni ci réew mi am nañ brevet am nañ bac ñi am nañ licence ñoom ñëpp am nañ niveau académique bu ñu jàngalee lu tax mënuñu leen mu mobiliser rek ndax mënuñu leen fay salaire bi ñuy fay enseignant loolu rek a tax est-ce que loolu mën na justifier ñu bàyyi xale yi ñuy dox ci mbedd mi au lieu de dugal leen ci classe mu ne ma lu gis xalaat wax li sama xalaat bi ma waxee sama xalaat ba mu d'accord ji ne ma demal seeti ministre budget ma waxtaan ak ministre budget mu ne ma at mi budget bi dem na ba pare mënuñu ko supporter wante at mii di ñëw dinañ ko mën supporter fa laa jógee partenaire au développement yi ngay wax ci laa demee seeti leen ni leen at nii budget national bi am na problème doo bëgg ak ñu def ko banque mondiale bi ñëpp di wax dafa bañoon dugg ci projet bi bañ ñun d'accord ak projet bi waaw d'accord ak coopération française ñoom ñoo engagé ak man mane nag du ma recruter comme ni ñu daan recruter ndax li ma jàng ci recrutement enseignant mooy boo ko tegee ci critère u mérite di nga am enseignant yu baax looloo tax bi mu fi toogee ba bi mu fiy jógee volontaire bu ñu recruter par concours la ñu kenn su recruter kenn ci par concours. critique bi nekkoon à l'époque quand mooy. Hmm. yaa ngi wàcce niveau wu li nga xam ne mooy enseignant parce que. niveau xam nga loolu. Uh-huh. wax nañ ci ak syndicat uh-huh. bu ma nekkoon syndicaliste. Uh-huh. temps yooyu ba ñu teg projet bi. dinaa xeex projet bi ndax loolu mooy sama rôle. bien mooy sama rôle bu ma nekkoon syndicaliste. Mhm. dinaa xeex projet bi ndax loolu mooy sama rôle. Mhm. et syndicat yi woo naa leen waxtaan xam naa ni mun ma jubóog ñoom boo mënul jubóog moom ma leen waaw léegi dañ def ñu jubóowul lu ñuy def man li ma ci xam. mooy arbitrage de l'opinion publique loolu laa ci xam bu ñu jubawul léegi mën naa jënd ay espace ci média yi ngeen indi seen délégation indi suñ délégation ku nekk wax opinion publique bi lan mooy argument ñu débat ñu arbitre ñu débat ko waaye bi ñu ko defee ñaari yoon ñetti yoon syndicat yi ni noonu nangootuñu euh, nangootuñu loolu argument yi c'est vrai que bu ñu jëlee salaire enseignant c'est clair que différence bi nag moo tax bëggu moon sax tudde leen enseignant mm-hmm. mu tudde ko service civique national avec des volontaires du service civique national mm-hmm. parce que bu mu leen tudde woon enseignant comme enseignant régulier li nga wax mën na am mais dama ni service civique national am nañ un défi national woonaa jeunesse bi en service civique national pour ñu relever défi bi jeunesse bi ñu ne ma loolu benn jeune du ko nangu loolu lañ ma waxoon. ma ne bon d' accord bi ma ubbee concours bi mille nag potentiel bi mi ngi fi woon. et ñooñu bi ñu duggee ci école bi ku wax ni ñoo yàq qualité école bi xamuloo li xew. ndax ba léegi. évaluation internationale ñu ngi fi ñuy jàngale ñuy jàngal <laughs> ak ñi enseignant euh, fonctionnaires yi jàngal comparé nañ seen résultat bien sûr donc yàquñu jàng bi ku wax ne da yàq jàng bi mm-hmm. waxuloo dëgg c'était assez virulent à l'époque ah. posture syndicale yow yow mi nga xam ne sax. yaa ngi ko c'est normal tey xam ni bu woon ci jamonoy syndical di ko xeex. Ah. mais c'est peut-être l'occasion de rendre hommage aussi ces volontaires parce que xam nañu si dara. am na ci ñoo hmm. xamante ni volontaire lañ tàmbalee première cohorte bi na ñu nekk ci njàngale mi. amoon ngeen programme aussi pour intégrer leen. progressivement au bout de quatre amoon nañ amoon nañ programme boo xam ni ça leur permettait après d'entrer dans le corps et d'avoir des conditions normales d'enseignant. et xam nañ ci ñoo xam ne volontaire lañ duggee ci éducation. day mm-hmm. inspecteur de l'enseignement la. waaw ainsi de suite directeur d'école ak yeneen. donc ça veut dire que peut-être am na njëriñ. Mm-hmm. mais week bi ñu génn. Mm-hmm. président de la république. dafa jiite setal suñu réew suñu gox. mu demoon ci fi nga xam ne mooy lycée lycée Demba Diop. ci mm. mbuur mm. wax fay wax boo xamante ne ni dafay woote réformer. Mm. suñu système enseignement moom benn bi mu jàpp mooy enseignement général maanaam sëf xale yi lu bari. war nañu ko wàññi ndax lu bëri lu leen jàngal am na loo junj sànq ci ne lu bëri luñu lay jàngal te doo ko mës a jëriñu. moom wax na ni mu ngi woote ci réforme boobu réforme it bañ a jàpp ni ñëpp enseignement supérieur lañu ñu war a dem agrégation doctorat ak yeneen mais bu ñu jógee ci états généraux de l' éducation 1981 def nañ fi assise de l' enseignement supérieur yooyu yëpp xam nga ci dara est ce que lu ñu évaluer la ba pare balaa ñuy mën a demaat ci beneen réforme ak wax jooju yow lan nga ci xalaat. Euh, liñ ci wax am na solo am na ñaar yu ñu jàng ci àdduna. Mhm. Euh, bu fekkee ni dëkk dafay tegle ay réforme sa benn réforme du ci egg benn réforme du ci egg day yàq jàngale bi loolu wane nañ ko ndax xam nga régime démocratique yi loolu mën na nekk seen faiblesse ndax comme que day am alternance politique régime bu bees bu ñëw bëgg ñëw ak réforme am loolu nag bu wéyee ci réew njàngale bi du jëm kanam réew yi seen jàngale jëm kanam ni ñu régler seen problème dañu am benn consensus ci benn réforme nationale boo xam ni de long terme la régime bu ñuy itam même booy bu ñu changé régime consensus national bi dëgëral na réforme bi nga xam ni moom la ñëpp war a topp consolider ko ndax système éducatif changement en profondeur am c'est toujours dans le long terme uh-huh. mënuloo ko def dans le court terme mënul am sa boo bëggee def dans le long terme il faut que dans un régime démocratique bu nga nekk nekkoo régime dictatorial uh-huh. il faut nga am consensus su ba nga xam ne bu ëllëgee yow même boo fi jógee ku la wuti itam dina wéy réforme boobu loolu nag la ñu mën a góor suñu dëkk ñaareel bi wax nga ko mooy évaluation bi évaluation dafa nekk loo xam ni mooy baasu réforme boo bëggee def réforme li ngay jiital mooy évaluation pour xam d'abord sa école fan la toll xam yan feebar nga bëgg faj ak réforme bi parce que réforme boo koy def da nga faj ay feebar mais feebar yooyu yan la. Ah. yan feebar il faut nga wax ko eh, am na ñoo xam ne nag du ñu def loolu loolu la tubaab doon tuddee enfin ñun moom lañ daan wax cherche de problème à des solutions. Ah. alors da ngay jékki-jékki damay damay parce que am na sa bopp loo xam ne bëgg nga koo def nga ne damay réforme daal wut ay problème léegi yoo xam ne amul sax daal damay réforme ci loolu boo bëggee réforme dëgg il faut nga xam yan mooy problème yi nga war a faj. mais xëy na am na lu ñu ci def ci système enseignant wu Sénégal maanaam jàngal nit ñi. Hmm. ba ñu dem ba wàcc. ni ñu hmm. koy waxee wàcc école maanaam. Hmm. daara yu kawe yi sax. te du ñu am benn métier à part enseignement classique bi wàcc te duñu am loolu quand problème la. waaw cest à que dafa bari bu fekkee ni dañu bëgg waxtaan loolu dafa bari loo xam ni daf ci nekk d'abord euh, enseignement général da lay préparer de manière général pour nga am adaptation ci différent métiers préparer wala pour tel métier ou tel autre métier boo jógee ci enseignement général da war a dugg ci formation. formation moo lay jox compétence professionnelle formation boobu ak boobu métier bu mu ti doon dafa laaj formation bi lay jox compétence professionnelle mais enseignement général moo lay permettre adaptation bi nga xam ni compétence yooyu yëpp di nga ko mën a am bu ëllëgee. mais enjeu wu adduna bi ak suñu besoin wu ndaw yi am liggéey. ak enjeu wu tey développement métier yu bees yi nga xam ne du enseignement classique général moo koy joxe est-ce que warul tax ñu réorienté waat. waaw orienté réforme bi moom lu war a am la mais dañu war a xam lan mooy suñu problème d'abord ñëpp xam nañ ni problème bi jiitu ci école bi bi nga xam ne moom la ñu jéem a faj bi ñu amee indépendance ba léegi mooy amaguñu école africaine. kooku moo jiitu sunu problème sunu problème amul benn problème bu ko gën a jiitu amaguñu école africaine école boo xam ni day jàngale li nga xam ni moom la nit bu jot jàngale ci làmmiñ yi nga xam ni moom lañ dégg di jàngale ci caada yi nga xam ni moo nekk ci réew mi jàngale boobu mu nga xam ne adduna bi yëpp boo demee Vietnam loolu la moo fa xew boo demee Cambodge looloo fa tax boo demee Corée looloo fa xew Japon fa xew jàngale boobu sa école école école ja école coréenne c' école coréenne école japonaise école japonaise c' est pas une école anglaise. mais tey yi dafa nekk sax ci dugal anglais. ci njàng mu gën a teel loolu dafa waroo ak par exemple war jàngale. ci loolu déjà xam nga méngoowul ak la ñuy jiital léegi am école africaine mais méngoowul itam ak la mu wax maanaam surcharge bi ñuy def ci curriculum bi parce que loolu day indiwaat beneen surcharge ci curriculum bi et méngoowul ak mën-mënu enseignant primaire yi enseignant primaire yi nga ne leen da nga leen jàngaloo anglais fan la jàngale didactique u anglais ñoom ñëpp ñoom sax est mën nañ anglais ci seen bopp bay jàng jàngale anglais ou bien da wut ay professeurs yoo xam ni eh, dañuy ñëw jàngale anglais rek ci école primaire yi cest loo xam ni la kenn xamul ban besoin réel lay répondre xam nañ li yàq ci surcharge curriculum bi xam nañ li mu yàq ci compétence su enseignant yi muy compétence académique ci anglais ak compétence didactique ci anglais yëpp xam nañu enseignants yi amuñu ko déjà ci français bi eh, évaluation yi wane nañ ni enseignants primaires yi am na dara lu bari lu leen manqué déjà ci loolu loolu defe naa lañ war a jiital sottali ko que soit en français ou dans les dans les mathématiques am nañ problème yu mag a mag defe naa ni loolu daal pour man loolu du priorité fi mu ne ci ci réforme Sénégal. xam naa ni suma la dugaloon ci éducation mu waxtaan wi mën naa yem ci éducation parce que sa parti pris la loo xam la loo loo namm di ko waxtaanee la aussi mais xëy na foog ñu avancer mais beneen bi ñuy évoqué ci éducation te ñu ne ci jamonoy rentre bi mu doon débat boo xam ne dafa traversé quand même période de vacances yëpp ndax wax dëgg fi yàlla yëkkati nañ fi coowal maanaam laïcité ak laïcité bi nga xam ne moom la ñu am. ci xale yi ci solin ci bañam discrimination loolu nañ lañ koy attee te gis nga ko premier ministre ci ndigalu président la sas na ministre de l'éducation nationale mu jël arrêté yoo xamante ne nii day réglementé wàll boobu loolu yow da ngay xam ne problème euh, da nga koy associé danga koy assimilé ci problème yu bees yu ñu créé pour chercher des solutions wala naka lañ koy attee non xam nga am na yu bari yoo xam ni mën nañ ko waxtaane bu jubóo ci bu buñ ko deful dina indi ay problème yoo xam ni nekku fi li ci jiitu dañuy wax mbirum discrimination bu fekkee ni constitution Sénégal lañ lañ jël cette constitution bi sunu école bi école discriminatoire la ndax constitution bi li mu joxe mooy chaque citoyen sénégalais a droit à l'éducation loolu la constitution bi joxe droit à l'éducation nag bu ñu koy jàng li ci jiitu mooy universalité c'est-à-dire ñëpp la war a couvrir ñun am nañ deux millions xale yu jar école au moins su nekkuñu école loolu discrimination mënu ko passé ci constitution de la la wax constitution Sénégal ñaareel bi droit à l'éducation dafa obligation obligation pour l'État obligation pour les familles benn famille amul droit nii sama doom dama ko yóbbu école c'est une obligation l'État itam amul droit ni aw ma le c'est une obligation mmh. est-ce que mi ngi fi. ñaar yooyu bu ñu jëlee rek. am na ci lu ñuy jéem par exemple pour am fu ñu parce que. abri provisoire lu waaw waaw non non ah, abri provisoire boo bëggee dinañ ci ñëw après. Hmm. parce que loolu itam <laughs> beneen beneen wax la mais li may wax daal moo ñu ngi plus de deux millions d'enfants et de jeunes yoo xam ni. seen age def leen weer ñu dugg école ñu nekk école sa nekkuñu école kon nag discrimination mënul passé loolu bu ñu wax waxi constitution la parce que constitution loolu la wax ci éducation bu ñu tegee constitution nag ñëw ci discussion uniforme uniforme lan moo ko waral ci école mooy différence socio-économique ci origine famille yu yi warul feeñ ci biir école ndax ñëpp benn tenue bi lañuy sol doon ni kii papaam am na xaalis kii papaam amul xaalis ñëpp dañ ci yem discrimination culturelle amul parce que du kiitanu culturel am la sol kiitanu culturel am la sol discrimination religieuse amul parce que kii tenue religieuse solu ko kii tenue religieuse solu ko uniforme bi benn la war a doon pour ñëpp mixité bi nga xam ne dañ ko bëgg boo nekkee ah, ku am xaalis amuloo sa papa am na xaalis mbaa sa papa amul xaalis ngeen nekk benn ci école bi ngeen dëkk kii dëkk Casamance ci dëkk Ndakaaru ngeen nekk benn ci école bi kii nekk catholique kii nekk jullit ngeen nekk benn ci école bi loolu mooy philosophie uniforme. mais est-ce que mënuñu ci déggee tamit ne discrimination mu ngi dugg see ci bi ñu mayul mu nekk ci li mu gëm li mu nekk li mu baaxoo est que discrimination bi foofu lay. est-ce que discrimination boobu. jógewul déjà ci discrimination bi ma doon wax sànq. constitution mixité bi loolu daf koy yàq élève bi di wax ni man ci biir école damay wane lii laa nekk ki wane ni lii la nekk ñu xàjjaloo ci biir école bi. mais loolu ci déggin école tubaab bi la wala suñu école la ñun ci suñu bopp. école. bu ñu wax uniforme dama ne la jox philosophie uniforme loolu laa la jox philosophie lan mooy philosophie uniforme ci école éducation waaw loolu laa la leeral léegi philosophie boobu mixité la mixité sociale mixité culturelle mixité religieuse loolu mooy règle bi loolu mooy philosophie Mamadou Ndoye foog ñu avancer ci su waxtaan parce que aussi euh, war na ko fàttali am na lu bari loo xamante ne xëy na bi ñu koy mool 2008 2009 assise nationale fekku la fi waaye terewul ci ni nga xam ne ni ñu ngi ko doon salaat loo ci dox la yoot ñi nga xam ne yeneen ci ànd premier ministre Mamadou Lamine Loum madame le procureur Dior Fall ak yeneen ak ñeneen ak ñeneen xëy na lim bi bari na te ñoom ñëpp ñu liggéey ci. solo boobu pour mën a éviter Sénégal li mu jaar ci 2012 jaar ko diggante 2021 ak 2023 lan lañ ciy tànk loo xam ne lu mën a jëriñ Sénégal la. waaw xam nga assise nationale dafa nekk loo xam ni ñëpp waroon nañ ci jàng surtout ñi jiite réew mi waroon nañ ci jàng mooy naka la ñuy dajale Sénégal yi set Sénégalais bu nekk. xelam bu gën a rafet naka lañ ko mën a taataane ba am xel boo xam ne ñëpp ko bokk ci defar réew mi ndax assise nationale buñ ko bëggoon tënk loolu la woo Sénégalais citoyen sénégalais yépp ku nekk sa xel fi mu gën a rafeti ci réew mi ñu jéem ko taataan boole yëpp mu nekk benn ñu ne nii la ñuy tabaxee suñu réew donte bi ñu koy mool quand important de le hmm. ki nga xam ne moo fi nekkoon ci jamono jooju président Abdoulaye Wade ak i nitam bokkuñu ca. donc du it waaye nag. waaw waaw nañu pour gën ko yaatal. xam nga buñ ne du ñëpp ku ci ku ci bokkul yaa ci bëggul bokk. waaw ndax euh, buñ ne ñëpp itam euh, bu fekkee ni dafa am ñoo xam ni yaakaar nañ ni loolu baaxul ci réew mi. dafa jafe dugal leen ci waande wóor na ni citoyen yi à la base comité yi ci département départemental yi ñoo ñëpp du woon mbirum politique du woon mbirum syndicat mbirum citoyen la woon kooku moom lu leer la woon waaw. mais luñ ciy tey ci loo xam ne nii lu mën a jëriñ. waaw loolu mooy liñ ci tànk mooy pacte bi. li ñu tuddee pacte de bonne gouvernance moom lañ ci tànk loolu mooy lan dañ ni réew mi bu ñu bëggee nekkandoo benn sunu xalaat nekk benn ci yenn mbir yi pas ci lépp mais naka la ñuy dundee ensemble loolu war nañ cee d'accord loolu nag biñ ci bëyee tànk ci assises nationales yi jéem ko ci pacte bi dañ ñu dajeeg lu xew ci réew mi li fi jëkk a xew mooy rey nañ fi ay xale ci ay manifestation xale yu bari mooy démocratie amatu fi woon mooy euh, parti politique bu ñu di bu ñu dissoudre xaw ma kañ lañ ko gëj gis ci àdduna sunu Sénégal ñu gis ko fi. ñu ne sa dëgg-dëgg loolu yëpp war nañ fexe ba dootul amati sa loolu buñ bëggee fexe ba dootul amati dañ koy jëlee ci assises nationales yi bi ci jiitu dañ ni démocratie ak li mu laaj et surtout démocratie boo xam ni citoyen bi day nekk. ci centre bi loolu war nañ ko ci jiital ñaareel bi état de droit bi nga xam ni euh, ñekk ko respecté moo indi njaaxum yu bari ñu doon wax tëj yu bari kaso yu ñu wax ñekk respecté état de droit ñàkk respecter indépendance de la justice ñàkk respecter séparation des pouvoirs ñàkk respecter primauté du droit loolu moo war nañ ko fi sancaat ba mu leer ñetteel bi ñu ne gouvernance bi sunu gouvernance nuñ koy defee du gouvernance bu baax gouvernance day nekk loo xam ni citoyens yi war nañ gis lépp li ci nekk madame transparence gouvernance day fekk loo ni alalu réew mi jël naa ko dugal ko ci lii lim ko dugal wóor na waa réew mi yépp que lii njariñu réew mi la du njariñu keneen njariñu réew mi la mu wóor ni aussi li ngay defal réew mi yaa ngi koy def ak équité loolu mooy lan euh, bu fekkee ni da nga ni damay defar hôpitaux hôpitaux yi mënul yem ci benn région il faut que région yëpp am fu ñu fajoo il faut que Sénégal yëpp foo dëkk mën a am foo fajoo mais bu fekkee ni ñii ñoo am fu ñu fajoo ñi amuñu fu ñu fajoo loolu gouvernance bi équitable du gouvernance bu équitable sa boo seetloo sunu réew loolu problème la fii ci sunu réew ñu ne itam am nañ administration boo xam ni war nañ ko sange administration nekk lu fi parti politique administration nekk lu fi bi religion mbaa bi religion administration nekk lu fi bi région mbaa bi culture administration pour citoyen yëpp la citoyen yëpp ci administration boobu itam war nañ moytu di ko politiser ci poste yi il faut que am poste yoo xam ni xëy na poste politique la mu leer ni ay poste politique la am na poste yoo xam ne développement la poste développement yooyu nag dañ bëgg compétence bi gën ci réew ci secteur développement boobu ñu teg ko fa ba nga xam ni foofu dina mën jëm kanam loolu yu bees yooyu lañ bëggoon mu jox ñu li ñu tuddee nouvelle république. li fi dox nii ci juróom-benn dafa am lu waroo gum ak loolu. pour le moment dara jëmagu ci. ah bon. déedéet gisaguma dara lu ci jëm. boo jëlee jub jubal jubanti dëppoo na ak walla wala du yem ci bàkk bi rek. waa jub jubal jubanti wax ju baax la wax ju baax la ana réforme institutionnelle bi nga xam ni moo ñu war a dugal ci nouvelle république bi kenn gisagu ko. de la justice lu baaxoon la quand ko. wax naa ni bonul. wande changé wul dara ndax justice bi ñëpp xam nañ ni am na ñaari feebar yoo xam ni buñ ko fajul sunu justice ni muy doxe du dox yoon bi ci jiitu mooy. exécutif bi nga xam ni dafa ŋànk justice bi may ko indépendance sa loolu fi muy jiite mooy exécutif bi na jóge ci conseil supérieur de la magistrature nañ ko ba mu ne ko waaw waaw ma ne xam nga wala waru euh, xam nga euh, euh, am na esclave yu ñu daan libéré ñu ne bëgguñu libéré kenn bëgguñu libéré leen parce xamuñu fu ñu jëm. bu ñu leen libéré kenn du xam fu ñu jëm. loolu libéré moo ci war. waaw <laughs> man waaw déet. dana la esclave. xam nga esclavage dañ ko war a dindi. Mhm. loo lu anormal la. mais am na esclave yoo xam ne dañ leen libéré ñu ne bëgguñu leen libéré parce que xamuñu fu ñu jëm. mais kooku luy atte bi garder ko wala libéré ko. koy libéré mais fexe nu mu dem nu mu demalee boppam. kon yow lii gënoon mooy président de la république ne magistrat man daal li ma jàpp mooy. Ah, mais mais président moom ci boppam loolu la gëmoon bala moo doon président moom ci boppam loolu la gëmoon bala moo doon président. mais xëy na déglu acteurs yi tamit ci ñu ne gënul ah, xam nga bu fekkee ni da nga bëgg a réformer benn secteur foog nga déglu acteurs yi foog nga déglu partie prenante yi mais am na leneen loo xam ni réforme daf ko laaj mooy li ma la doon wax léegi. nga génn ci logique bi fi nekkoon boo fekkee ne da nga dugg ci logique bi fi nekkoon mënuloo réformer en profondeur secteur bi il faut nga génn ci logique bi sa acteurs internes yi leen ci logique bi foog yow sa bopp nga def référentiel boo xam ne de base bu leen génn ci logique bi ñu xalaat boo xam ni li li tubaab di wax sortir de la boîte <laughs> mais tant qu'ils sont enfermés à l'intérieur de la boîte du nez et yow sa bopp yow miy def réforme bi yaa war a leeral li nga bëgg a def aussi boo ko leeralul parce que bu fekkee ni da yaakaar ni justice bi baax na justice bi fi nekk justice bu baax la yow ton problème mooy naka koy améliorer parce que da yaakaar ni lu baax la mais boo yaakaaree ni baaxul base yi dafa war a changé donc yaa war a wax ni nouvelle base yi léegi lii la dañu war a am nouvelle base sa loolu moo amul ci assise mais ci ne dañoo xeex ba jot ci nguur gi te ñun xam nañu lu ñu bëgg a defal Sénégal loolu mu mënuñ ko nangul nguur gu bees gi aussi ci ne lu ñu xeexee ba jot ci xëy na xam nañu fi ñu bëgg a yóbbu réew mi kon nit ñi tamit nañ ñu may rek ñu doxal li nga xam ne moom la ñu. waaw wala nga yaakaar ni doxal bi. moomuñu ko ñëpp a bokk. c'est-à-dire que euh, dafa am dafa am luñ luñ leen may. liñ leen may mooy ñooy njiitu réew mi liñ leen may mooy décision bi mujj ñoo koy jël kenn mënu koo la dindi loolu ñoom ñoo jiite. sa décision bi mujj ñoo koy jël li ñu bëgg nañu déglu nit ñi bala ñoo jël boobu décision déglu ba pare jël léegi décision bi. mais delloo ci assise yi déglu nañu nit ñi. waaw wax naa la li ma xalaat ci assis yi wax naa la ni d'abord. Mhm. du assise yoo xam ni. dafa waroon réforme de justice dañu nekk ci biir si bëgguñu cee génn ci biir nag lan nañ fa mënoon faj ci biir loolu lañ def te loolu génnewuñu ci ci seen li ñu wax ni moom lañ bëgg ci Sénégal maanaam transformation systémique parce que ñoom ñoo wax loolu léegi nag li xew ñu ngi biir système biñ ci fekkoon génn guñ ci changé nañ nit ñi mais changé wuñu système bi sa bu ñu moytuwul système bi changé nit ñu bees ñu fi def. mais boo déggee premier ministre wax ni xëy na dana metti parce que bu yaakaaroon ne mu ngi premier étage la yegg si mu ngi quatrième su sol loolu lu ñu war a déggee la ni kon. may leen ñu xëy na dana gën a metti waaye dana gën a góorgóorlu pour waslu ci àq pour mu changer. waaw loolu benn boor la. Mhm. benn boor la mbirum économie la. Mhm. waxagul dara ci réforme institutionnelle yi. waxagul ci dara de loolu économie la. c'est économie bu ñu seetloo dëgg-dëgg. li mu wax bu fekkee ni. li mu wax yëpp dëgg la sa yaakaar naa ni dëgg la ñu ngi ci situation bu metti ci Sénégal sa li ñu jëm nar na metti xëy na tur wi kenn mën a tudd ba léegi parce que tur wi ñaar la mën a doon fi ñu jëm li premier ministre annoncé pour faj li ñu nekk austérité la tudd ci li gën a ndaw ci gën a mag ajustement structurel la tudd waaw annonce yi mu def ci boor boobu la jëm waaw. mën nañ nañ lañ koy doxalee ci suñu diggante ak euh, partenaire au développement yi parce que gis nga li fi débat fan yi. waaw euh, loolu addi ah, je crois que pour le moment amuñu ci problème parce que boo seetloo bu baax ñun ñaa ngi wax ni di ñu déglu waaw les partenaires au développement ñu ngi leen di déglu ñoom mm-hmm. waaw. et fekk li mu wax yëpp loolu moom la ñu wax ni moom lañuy def waaw li fekk ñuy wax yëpp moom la wax ni moom la ñuy def. mais li nga doon wax sànq ci ni ci wàllu éducation amoon nañu loo xam ne nii c'est endogène. Ah. maanaam ñu compter ci suñuy mbiri bopp mën a parce que daan nañu faju balaa tubaab bay ñëw daan nañu jàng balaa tubaab bay ñëw développement tamit ndax mën na doon mën na doon mën na doon suuxoo jaaree foofu. mooy sunu problème mu modèle ban modèle lañ bëgg. <laughs> est-ce que modèle liberal dominant bi nga xam ni mooy joxe loolu ñuy wax yëpp est que ci model boobu lañ bëgg dugg ou nañ bëgg dugg ci beneen modèle. <laughs> loolu mooy question bi bu fekkee ni modèle libéral dominant lañ bëgg bëgg a dugg ah jaar jaar bii gars yi jaar nañu jaar leen fii yéen it bu fekkee ni beneen model développement lañ bëgg boo xam ni ça répond mieux à nos besoins et à nos réalités ñu ñuy ko modèle endogène modèle endogène boobu nañ ko jéem a waxtaane seet nañ ci gën ñuy wax quand ci du yoreel suñu li ñu moom suñuy ressources. ko suñu bopp yoreel ko suñu bopp. d'accord lu ñu négocier ci ay contrat aussi mu nekk en notre défaveur. waaw ko waaw mais bëgg naa loolu yëpp. mu bañ a yem ci wax ji ñu seet na politique yi ana stratégie na structure yi ana dispositif yoo xam ni loolu dina am. bien sûr ñu ngi ci semaine boo xamante ni gouvernement bi président de la république le 14 la jox rendez-vous premier ministre waxoon na ni dana siiwal programme. Euh, bi nga xamante ni nii moom la moom la moom la ñuy xaar te ñu ne dañu ko tànqee woon ci situation référence bi nga xam ne nii def nañu ko loolu lu ñu mën a lu ñu mën a jàllale ci kanam déet. mën na am mais man réew li ma gëm bu fekkee ni da ko bëgg a transformer foog nga waxtaan nag ci nga xam ni ñoom transformation bi ñoo koy def. boo bëggee transformer économie les entrepreneurs et les travailleurs de l'économie foog nga dialoguer ak ñoom naka ngay transformer parce que yow doo ko transformer ñoom ñoo koy transformer c'est des producteurs c'est des entrepreneurs qui transforment l'économie du yow yaa koy transformer donc foog nga waxtaan ak ñoom ba ñoo xam ne dañuy approprier stratégie bi mën ci dugg mën mën def mutation yi war bu fekkee ne éducation la noonu bu fekkee ne culture la noonu lu mën ci doon noonu la mais gëw ma ay experts yu dajale rek daan ni li moo baax ci réew mi daan ni citoyen yi ay ca dem leen topp leen lii jeex na gëw ma boobu développement. lan moo tax mu mel ni ki mënuñoo weesu. coowal <laughs> délit d'opinion parce que loo xam ne dafa solo loolu réew mi trop ci ñaari at ñu génn. mais moom loolu moom laa wax nouvelle république bi moo tax buñ duggoon ci nouvelle république bi seet fii ñu jaar yëpp naka lañ fexe ba mu bañ a amati ci réew mi fexe ba démocratie ñu seetaat ko tabaxaat ko ba loolu du am état de droit ñu tabaxaat ko ba loolu dootu fi amati. gouvernance réew mi ñu tabaxaat ko ba loolu du fi amati administration comportement ñu tabaxaat ko ba loolu du fi amati loolu buñ ko defoon tey suñu nouvelle république loolu ngay am Sénégal mën fàtte loolu. mais lan moo tax tout le di dit presque la même chose parce que ñëpp amul kenn ku ma dégg ku ma ne dama bëgg ñu dellu ci li ñu nekkoon ci ñaareel ñëpp dañoo ne bëgguñu mu amati. waaw mais lu tax mënuñ ci mënuñ ci génn mais dans les faits euh, mu mel ni kii waroon na ak yéene bi nga xam ne ñëpp moom la ñuy wax de tout bord. koo dégg mu ne la waaw ah, mais en tout cas yoon yi yoon yi ñu ngi ci pacte bi leer na nuñ koy doxalee waxtaan ci kenn laaju leen leneen waxtaan ci léegi décision bi mujj ñoom ñoo koy jël mais au moins nañ ci waxtaan mais même waxtaan ci mënuñu ko am waxtaan ci mënaguñu ko am waxtaan ci rek bala ngaa defar dara mën koo toog waxtaane mais waxtaan bi <laughs> mënagul am. yow da gis ni xëy na réew mi yaataluñu ko ba lépp ñu mën ko wax par exemple lu mel lu mel ni éducation par exemple xëy na gis nañu rentrée bi ni ko préparé gis nañu conseil interministériel bi nga xam ne premier ministre. jiite na ko aussi directive yi nga xam ne moom la ci joxe bu weesoo euh, def naa ci onze mesures la bokk na ci abri provisoire provisoire ñu fexe mu jóge fii bokk na ci arrêté boobu nga xam ne ministre de l'éducation la ko sas pour wàllu ah, noonu lañ ko tuddee parce que loolu moo nekkoon problème bi dëggantaan pour fexe bi mu jóge fii loolu nga yaakaar ni doyul quand pour ñu mën a xàll yoon yoo xam ne moo ñuy dugal dans cette nouvelle république là bokkul ak defar système éducatif bokkuñu yow da ngay fexe ba rentrée bii bii ñu jëm mu def ni mu ware jeex na loolu la paasewul loolu mooy comme aussi distribuer semence bu baax. ci campagne bi waaw ci foofu la yem. changé wul politique agricole. ne stratégie nationale de développement. Oh, ah, ah. deux mille cinquante bi xam ne moom la ñuy móol ci vingt six ans yi ñu yëppul deux mille cinquante. waaw ko ko ko xamaguma ci xawma xawma xamaguma ci dara. maanaam projet bi quoi comme on waaw waaw mais xam nga moom la ñu campagner wax nañu si li ko faussé mooy li nga xam ne nii moom la fekk. waaw mais projet bi ñu campagner te yéen ci aussi ah je pense société civile bi ñi nga xam ne Sursaut Citoyen Demain Sénégal yi nga xam ne moom nga gën a bokk te ngeen doon. moon assise nationale bi ngeen dalalee représentant parce que li ñu gën a intéresse mooy kii falu président Bassirou Diomaye Faye yéen a ngi fàttaliku lan la wax ak yéen pour signer charte charte assise nationale ak parce de bonne gouvernance c'est-à-dire que Ablaye dafa am loo xam ne am na importance mooy ñun fi ñuy waxe fan la waxewuñu waxu opposant waxuñu waxu ku yàq ñun partisan transformation lañ partisan li ñu yaakaar mooy sunu réew tey ak li Pastef def ci réew mi ak li mu gëmloo nit ñi créé opportunité boo xam ni tax na ñëpp yaakaar ni transformation boobu mën na am suñuy wax nag mooy opportunité boobu ñu bañ ko yàq li ñu wax yépp ci loolu la jëm ñu bañ ko yàq fexe ba transformation bi yaakaaru nit ñépp tegu tey mu mën a am looloo tax ñu wax ni doo mën a jóge fële rek ni nit ñi def leen lii topp leen lii jeex na transformation des da ngay toog nit ñi dajale leen secteur ba secteur bu nekk nga waxtaan ak ñoom nit ñi approprié ko ba nga xam ne bu ëllëgee fu ñu nekk seen liggéey xalaat transformation bu mën a am bu fekkee ni itam da nga bëgg transformation am dëgg environnement systémique bi nga xam ni mooy joxe climat bi il faut nga def ko mooy nouvelle république bi mooy cadre institutionnel bi nit ñi sentir ni léegi pays bi pays de démocratie le pays de liberté le pays d'initiative la nit ñi sentir ni pays bi pays de droit la que citoyens yooyu yëpp ñoo ci yem ñoo ñi sentir ni am nañu responsabilité pour pousser réew mi mu jëm fu baax nit ñi sentir ni administration bi fi nekk administration yëpp ñëpp la nekkalu fi kenn nekkalu fi bay bii boor mbaa bële boor réew mi la fi nekkal askan wi la fi nekkal loolu buñ ko tegee dañ déjà dañ am environnement systémique bi nga xam ni politique yi ak confiance bi ak lépp dina mën a am ba ñu mën transformer suñu dëkk sa loolu malheureusement pour le moment gisaguma ñuy jëm ci. processus électoral Sénégal xëy na jàmbaar lañu ci élection organisation élection parce que léeg-léeg dina dem ba yàng. Mhm. bu ñu demee jour élection bi peuple bi wane maturité parce que loolu la ñuy bàkkee wane maturité mu jeex waaye li jiitu élection xëy na njortoon nañu ni coow du bëri parce que li ñu jaar yëpp. mais élection yi ñu dëgmal nii législative yi mise en œuvre bi jafe na trop ba werante bi bari trop lan yaakaar naa ne warul bari werante ndax euh, bu fekkoon ne dañu indi ay règles yu bees sax teg ko dinañ ni peut-être bi mu ngi jéem a njuuj njaaj mbaa dara règles yi fi nekkoon moom lañ teg am na sax règles yoo xam ni ñun ñoo ko daan jooy. wàññi nañ ko maanaam mbiru parrainage ak yooyu kon nag man man sa dëgg-dëgg du loolu sama xalaat nekku ci pour man ñëpp war nañ dem élection yi ci jàmm ñu génn ci jàmm gisuma élection yi vraiment yu ci ñaawagum gisaguma ko. ay lan moo tax euh, ñu toll ci situation boo xamante ni nit ñu ngi waaj élection ñu naan ñu ngi jàpp opposant politique ah, parce que ci wax waxu opposant la est-ce que Sénégal quand même war na dafa war waaw waaw loolu du pour man boolewuma ko ci élection yi. parce que avant élection yi commencé woon na dama ni loolu mi bokk ci li ma tuddee changer environnement systémique bi bu ñu liggéeyoon mbiru démocratie liggéey état de droit liggéey loolu yëpp loolu mooy tere loolu di fi amati ak ku munti doon dootu fi amati. sëñ ñun yaakaaroon nañ ni ak nouvelles autorités fi ñu jaar ba egsi fi ñu egsi yaakaaroon nañu ñoom ñoo ñuy gën a sawar sax ci loolu ndax loolu bañ a amati ci réew mi. ngeen da ngeen nas diggaale ko ak ay candidats yu bëri est-ce que amoon na agenda ci ne ah bu ñu tolloo ci jamono ji war na ñoo def lii di ngeen wu bu ñu tolloo ci jamono ji war ngeen ñoo woo ñu toog. déedéet ñu feuille de route. feuille de route bi dañu woon kandidaa bu fekkee ni jàll na dinañ dajeek moom waxtaan ak moom pour cette feuille de route bi naka lay deme mais par contre am na loo xam ne waxoon nañ ko mooy ci deux cent jours yi dinañ démarrer liggéey bi ci deux cent jours yi deux cent jours yi passé na lu tax démarré ah xaw ma lu tax démarré wu. yéen am ngeen yéene pour démarrer ko c'est-à-dire. Euh, ñun weesu nañ yéene. ndax bind nañ ñaari lettre président de la république pour rek toog waxtaan ak moom ci mbir mi. président de la leen. ba léegi ba léegi waxaguñu dara ñu ngi toog. ci mouvement yi nga xam ne nii sosoon nga ko te bi muy wut aussi mu ñëwoon wuyu si leen parce que xay na bu leen wuyu see mooy gëmoon na ni li ngeen nekk. amal na réew mi njëriñ amal na ko njëriñ. loolu lañu yaakaar ba léegi suñu yaakaar tasagul yaakaar nañ ni ah xëy na xel yi dina dellu si ba ñu mën daje waxtaan ci loolu ndax njëriñu réew mi la du sunu njëriñ ñun kenn njëriñu réew mi la. Maodo Ndoye dañuy delluwaat ci ginnaaw tuuti xam nga dañoo nekk ci jamonoy sommet francophone. Mhm. wax dëgg fa yàlla xëy na xaw ma ndax dañ koy assimilé ak France am déet mais terewul. ren président de la république Bassirou Diomaye Faye teewul ci sommet bi Sénégal lan mooy place am ci francophonie gis nañu aussi ministre des affaires étrangères wax ni francophonie politique bi moom mënatuloo dox parce que bokkuñu ay xalaat te mënuñu faa waxtaanee ba déggoo donc amatul njëriñ ci wàll boobu. waaw nañ am xalaat boobu parce que mënu ma leen critiquer ci loolu euh, bu fekkee ni. da bëgg a def yenn rupture yi ah xëy na rupture boobu ci la bokk eh, man rupture boobu maa ngi ko féetale ci rupture xalaat yi maanaam génn ci benn façon xalaat pour ñëwaat ci xalaat boo xam ne yaa ko moomal sa bopp rupture boobu du rupture boo xam ne mën naa ko critiquer gis naa sensibilisation yi nga xam ne yéen koy def loo xam ne ci kàllamay wolof ngeen ko gën a bëgg jàllale est-ce que quand ñu taxaw ci débat boobu ci débat wu jàngale ci suñuy làkk danañ def ba valoriser suñu suñu làkk yi te mu doon loo xam ne dès le bas lay doon est-ce que enjeu wu njàng egg na foofu pour ñu utiliser suñuy làng pour jàngale. waaw xam nga yëpp ci niveau bi la dépendre. ak ci liggéey bi ñu def ci langue yi fi mu ne liggéey bi ñu def ci langue yi may nañu ci enseignement primaire ñu jàngale ko liggéey bi ñu def ci langue yi expérimentation bi ñu def itam wane ni ni non seulement mën na am mais njëriñu école bi la ndax xale yi jaar foofu seen jàng moo gën a mat xale yi jaar feneen kon nag loolu moom lu leer la ci mbirum doore ci làkk bi nga xam ni moom nga dégg boo ko dooree jàng sa jàng ci lay gën a meññ que ki nga xam ni dafa doore làkk boo xam ni xamu ko kooku moom lu leer la sa du suru dëkk rek lañ ko wane dañ ko wane ci dëkk yu bari Sénégal naka lañuy def parce que nguur bu bees gi vraiment wane na situation réew mi fu mu toll ci li nga xam ne ñu wax nañu ko en bien sûr cour des comptes xëy na certifié ko xëy na xam na ci dara moo tax mu waaxu ko wax ko ci li nga xam ne nii ñoom ñoo fi jaar te yoroon alal réew mi ci ni ñu koy waxee ci anam yoo xamante ni nii xëy na tey na xela naka la ñuy def aussi ci wàllu rupture systémique yi ba xëy na lu mel noonu pas que ñu jubbanti ko rek ci teg daan ñi nga xam ne ñoo mais fexe mu bañ a mooy gouvernance bi ñu doon wax léegi. gouvernance bi dañ ni gouvernance bi il faut mu nekk gouvernance transparente maanaam xaalisu réew moomuloo ko réew mi moo ko moom xam nga Sénégal dina fi am loo xam ni sax normalul bu ñu jógee ci Sénégal nga président de la République dafa may tiijaan yi mbaa dafa may murit yi di mbaa dafa may ñële ñële sa xaalis bi xaalis sa réew mi ñu wax président baax na baax na ci rek alalu kan alalu réew mi loolu dañ ko waroon leeral tey ba nga xam ni diina yi fi nekk bu ñu di jox xaalis ñu xam ni réew mi moo leen jox xaalis du président moo leen jox du premier ministre leen jox réew mi moo leen jox xaalis war nañ leeral lépp loo xam ni yow yaa ko moom parce que dañuy fàttali ñun ñoo ko moom li ñuy wax alalu réew mi sa dërëm a ngi ci sama dërëm a ngi ci dërëmu keneen a ngi ci li ko waral non seulement sa impôt di ko fay impôt sur le revenu dañ koy fay di nga fay yeneen impôt yoo xam ni xëy na xamuloo ko sax ndax boo jëlee oto def paas sa paas boobu am na loo contribuer ci alalu réew mi parce que transporteur bi dafa am lu muy fay ci alalu réew mi sa transporteur li muy fay daf koy dugal sa paas nga dem ci boutique ba jënd boutiquier bi la muy fay ca nguur ga daf koy dugal ci la fay c'est donc yaay faykat bi looy def di ko jënd fii yaa ngi dugal xaalis ci réew mi donc xaalis bi ñuy wax réew mi loolu bi ñuy wax ci marché kan moo koy fay client bi moo koy fay ñun ñii ñoo koy fay bésu jot loolu yëpp dugg ci xaalisu réew mi waaw lu suñu xaalis di ko dugal feneen lu waral loolu li ko waral mooy xaalis boobu moo war a defar li ñu mënul defaral suñu bopp yow mënuloo ni damay tabax ekool pour sama doom rek di fa jànge déedéet loolu xaalis bi ñu bokk moo ko war a defar mënuloo ni damay defar dispensaire man kenn di fa faju xaalis bi ñu bokk moo war a defar loolu mënuloo ni damay defar yoon man kenn di fa dawal sama oto xaalis bi ñu bokk moo war a defar loolu li nga mënul yëpp xaalis bi ñu bokk moo ko war a defal xaalis boobu nag lu ca jëlee wàññi na loolu wàññi na jàng mi wàññi na paj mi wàññi na économie xaalis bi lu ca jógee rek wàññi na loolu looloo tax ñu ne sacralisation des ressources publiques sacralisation sa boo demee ci yenn dëkk yi dañ ko eggal foo xam ni ministre buñ ko gisee mu jël auto de service am dem këram bés boobu ñu dàqu ko parce ni buy dem këram dafa war a def comme citoyen yëpp auto bi dañ ko ko jox pour le service public bu ko defee ci service public yoon bu ko defee ci service su boppam war nañ ko teg dara loolu mooy sacralité sacralité bi ñuy wax loolu ñuy fexe ba egsi ci Sénégal ba ñëpp dugg seen bopp loolu buñ ko gañee mu neex. xëy na processus la te xëy na. Mm-hmm. dana yàgg mais mën nañ ci yegg. ndax xëy na wu alalu buur. Mm-hmm. du weesu na citoyen bi rek ba ci. Mm-hmm. ki nga xam ne mooy jiite sax wala responsable bi alalu buur maanaam lu kenn moomul. donc jëfandikoo ko nu ñu neexee loolu war na fee jeex quand même. ah dina jeex. xaw ma kañ nag wala dina jeex. <laughs> Mamadou Ndoye merci beaucoup. jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax. ñoo ko bokk. li ni amoon nañu yéene waxtaan ak yow. Mhm. te jukki nañu lu bëree bari bari bëri. fàttali mhm. rek ancien ministre de l' éducation mhm. ministre de l' alphabétisation et des langues nationales ancien ministre de l' de base et des langues nationales politicien secrétaire général LDMPT. 2013 2017 mais aussi syndicaliste parce que nekkoon nga secrétaire général Sud-Est nekkoon nga secrétaire général UDEN aussi en plus de carrière au niveau au plan international ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ci waxtaan bi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. merci beaucoup merci